asalaamaaleykum waa CODAS maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di leen baalu ak si li si korite gi di leen baal nga xam naa ni sax ama eh, leen ma àq maa leen amel àq leen di baaluwaat bu baax a baax a baax a baax ndax metti na ndax bi metti na yi di leen naan tamit yenn bi egsi na bépp jëf bi ngeen di jëf ngir man egsi na te maa ngi koy gis maa koy dégg di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen fi may leen sutura may leen wér ak wérle yàlla nangul ñu suñuy ñaan nangul ñu suñu koor ñu suñu jullit jëmm Mawlana Cheikh Ibrahima Niass maa ngi baalu ku nekk koo xamante ne dégg nga la naqari ngir jëmm ji nga xamante ne moo tax a toog maa ngi ciy baalu àq ci barki Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yàlla may leen gudd fan ak wér gu yaram defal leen sutura ko xiwali ci barki Mawlana Cheikh yàlla may ñu ndam si combat bi nga xamante ñoo ko bokk ci barki Mawlana Cheikh Ibrahima Niass maa ngi leen di baaluwaat di leen jégal di leen jégal bu baax di leen jaajëfal tamit leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram bu mot sëkk laa leen di ndax combat bi metti na trop trop trop maa ngi leen di ku nekk sa gaal di yàlla nañu yàlla defal jàmm ci barki Mawlana Cheikh Ibrahima Niass.